ko la dugal ci bëgg sama réew. bëgg bëgg sama gox bëgg dimbali askan bi parce que politique aayul. parce que yonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa politique ba taxawal bi taxaw. Mhm, mhm. dafa am lu aay muy politicien mooy see bi mooy sàcc ak sos ak fen mën nga ko traduire ñoonu mooy ñetti es yooyu noonu sàcc siis fen loolu mooy es bi mooy moo tax ñu naan politicien baaxul mën nag politique laa boo xam ne dama koy def pour que mhm. amal njariñ sama gox fa man jëkk dëkk parce que dama nii réew mi kenn mënu koo def te tàmbaloo ci suuf mm-hmm. ma ne bu may politique damay xool jafe-jafe yi askan wi am la ma si man ma def ko la ma si mënul ma wax ko la ma si mënta wax ma jëf ko pour ñeneen ñi mën koo def mm-hmm. loolu bokk na ma si ndax boobu politique jafe woon na sama papa nekkoon ci jàppale président Abdoulaye Wade bi mu nekk opposition nekkoon si député mm-hmm. deux fois ñun tamit ñu màgg si keppaaram xam ne ñun gis na ni kii taxawaay bi muy taxaw bi ñëpp maanaam demee jàppale Abdou Diouf moom mu resté si ànd ak Ablaye Wade si googu noonu. Mm-hmm. tax na bi Ablaye Wade di gagné réew mi moom si moom la ko fekk moom mu gagné ko kon jàpp naa ni loolu bokk na si li tax que ñu gën ko jàpp mm-hmm. naa jëm si population bi saa dem waaye nag ñun. Mm-hmm. nekkuñu politicien boo xam ne dañ def pour suñu intérêt bopp parce que man Sëñ Touba teral na ma bu pare yaakaar naa politique li ma yàq sama alal moo ëpp li ma defoon. macha allah dinañ ñëwaat euh, ci euh, sa liggéey nga nekk assemblée euh, depuis 2017 am li nga xamante ni moo di deux mandats dinañ ci ñëw yaa